je ne peux pas comprendre un candidat aux élections présidentielles mu ne la am na 4 millions de parrains de mu dem conseil constitutionnel mu déposer ay parrainage des élus mu pare si loolu mu dem France 24 mu ne ñu il va gagner les élections au premier tour et récemment j'ai vu sur des plateaux télé ay nit yoo xam ne dañuy toog di naan Amadou Ba mun na gagner élection alors que Amadou il avait que 47 pour cent et quelques aux élections législatives te boo xoolee euh, ali euh, président Aly Ngouille Ndiaye nekkatul foofu président Boun Abdallah Dionne nekkatul foofu mm-hmm. euh, Mame Boye Diao nekkatul foofu sans parler de Mimi Touré qui est avec nous désormais de Aïda Mbodj de, de beaucoup de personnes qui étaient avec il le bëgg wax normalement il n'a aucune chance il ne peut même pas avoir je ne xam nga bëgguma je ne mm-hmm. veux pas être dans la propagande oui. mm -hmm. mais yooyu génn foofu Aly Ngouille Ndiaye président Aly Ngouille Ndiaye mooy ku nekk Jolof kële euh, Mame booy Diao qui est euh, au Fouladou nga jël euh, ay Mimi Touré ay mari professeur Mary Mary Teuw Niane bu nekkoon Saint-Louis donc da ngay xam ne Amadou Ba le président Amadou le premier ministre Amadou Ba il ne peut pas avoir plus de quinze pour cent le maximum quoi yàlla baal ma nag yàlla rek moo xam ah. mais moi je suis sûr et certain parce que logique politique là aussi on n'est pas en religion